muy Cheikhou Kouyaté mu def benn caravane bu rëy rëy ci Grand Yoff def ko ci Dakar wan ni ko man awma dara fii ci Sénégal lu dul la population sénégalaise rawatina waa Grand Yoff xar yàlla Grand Yoff bi ma dëkk ba tax na bés boobu mu ne sama caravane bi yoon yi may yoon yi muy jaar neex na ma waaye am na benn yoon boo xamante ni gën na ma soxal mooy fi nga xamante ni euh, star musique sénégalaise te yóbbu na ko fu soree sori dem ba jëli trophée à l'étranger ñëw indi ko fi nga xamante ne à Grand Yoff te ma dégg aussi ces gestes qu'elle fait saa yu ñëwee mi ngi organiser benn festival bu mag a mag ñu tuddee ko 72 heures de Grand Yoff nga xamante ni daf ci euh, organiser consultation gratuite cancer du sein col de l'utérus yi ni ak yi ni aussi tamit benn soirée boo xamante ni ah, comme dañuy euh, Grand Yoff c'est Sénégal en miniature ethnie yëpp ñoom ñoo ciy daje Joola séeréer bambara euh, pël olof ñëpp ciy daje ku nekk nga indi sa culture ñu daje ko ak Grand Yoff wane ko mu génn ci alal bu baree bari rawatina euh, cancer du sein bi col de l'utérus ñëpp xam na cher na mais mu def ko gratuitement ci ci jomam ak fulaam ak faydaam seexu ne caravane bi fi mu war a jaar dina ma neex mooy bu traversé à votre que ñoom Guigui ndax jàgg naa dégg ci moom mësuñu gisee waaye comme fii ci Grand Yoff jëf na fi jëf joo xamante ni comme man mi aussi ak nuñ may xoolee buñ fa jaaree dina ma neex waaye ban fa jaaree aussi tamit Guigui gis na ci benn taxawaay bu am solo macha allah mooy que man it dinaa delloo njukkal l'international sénégali muy Cheikhou Kouyaté ndax ñun ñooy représentant wu Grand Yoff à l'étranger bu ñu demee suñu gis-gis mooy doomu Grand Yoff te on est fier d' être Grand Yoffois bu ñu demee foo leen dëkk Sénégal foo leen dëkk Sénégal Grand Yoff dañuy gën a bëgg gën ñu fonk ndax ñun ñoo mën a defar Grand Yoff ñun ñoo mën a baaxal Grand Yoff xaar yàlla man mii gigi man mi aussi man man mi Cheikhou Kouyaté le capitaine de l' équipe nationale du Sénégal ba tax na aussi géegi tey géegi tey ne aw ma dara lu may def lu dul jël tableau bi gën a cher ci tableau bi tableau bi ku ko gis xam ni valeur de million la ndax kilifa boo koy seeti nit ku am dignité nit ku am fulla nit ku am fayda nit ku am diine aussi muy Cheikhou Kouyaté boo koy seeti nga xam ni dafa représenter la Sénégal ci le plan international doo ko yóbbu loo xamante ni mara day caali la nga koy yóbbu loo xamante ni heure bu ko gisee wala keneen ko gis dina xam ni kat kii ka ko seeti woon di ganam di doomu ndeyam di xaritam ñu bokk benn point de vue yóbbul na ko teraanga ndax tableau bi ko gis xam ne boo demee fële ca France boo duggee ci palais bi di nga gis table yi ni mel. li ñu fi indi ñëpp xam nañ ko wax nañ ko léegi donc man defuma lu dul di la remercier euh, di la remercier au nom de tout euh, la population sénégalaise ak au nom de toute euh, la population de Grand Yoff aussi parce que lii dafa neex donc nit ñi léegi ñi ngi xoolee Grand Yoff beneen bët. Euh, yow yaa tax man maa tax keneen ak keneen euh, juddoo Grand Yoff tekki Grand Yoff yóbbu turu Grand Yoff fu sori moo tax donc ñun mënuñu am feneen fu dul Grand Yoff donc raison pour laquelle comme ni ko Madia waxee donc bi nga def sa caravane vraiment Grand Yoff yaatu na mais vraiment ngeen décidé jaar sama buntu kër donc acclamé sama nom donc euh, gor moom boo ko jamee rek jam nga ko donc moo tax lii moom lancement bi rek la donc comme ni ko kii waxee c'est un de Ousmane Ndiaye Dago ñëpp xam nañ ko vraiment donc euh, moo joxe tableau bi ne ma vraiment Guigui man sama dama bëggoon sama cadeau euh, boo koy jël mu nekk loo xamante ne ci man lay jógee mu nekk cadeau de valeur moo tax euh, dew ma feneen wuti cadeau ci moom laa dem vraiment wuti fa cadeau bi muy lutteur ah pour wane ne an foofu laay tëjee ni laa bëgg ngeen xeexee jël coupe bi indi ko Sénégal incha allah te loolu day am te may ñaan euh, waa Sénégal yi ñu tàllal seen loxo ñaanal leen xam ne coupe bi dina ñëw 2021 loolu sentir naa ko incha allah te yàlla nga jiite waat équipe bi comme ni nga koy faral di defee en tout cas maa lay bu baax a baax a baax donc euh, jëlee nga fu kaw donc tey nga indi ma cadeau bu rafet bi donc lii moom fii laa xëy ñëw taf léegi léegi quoi amul benn benn benn problème sincèrement parler euh, comme nu ma ko waxee rek nee naa la xar yàlla grand bi ñun ñoo ko bokk mi yow ñun euh, diib keneen ak keneen tey ñun ñoo ko mën a wane beneen image boo xam ne te image boobu moo fa nekk donc pour wane ni carrément foofu jàmm moo fa nekk que xar yàlla grand neex na que foofu tamit am na ay star am na ñoo xam ne carrément mën ne représenter Sénégal donc man moom dama lay encourager di la wax bu baax a baax a baax bonne chance yaa ngi si euh, waaw réew bu baax donc comme nu ma rek. saa mu la woowee rek what's my name waaw gis nga mais yow lu mu lay wax rek mooy nekk si jàmm rek vraiment kontaan aw ma sax xaw ma xaw ma sax la laa lay wax vraiment moom lii moom lii moom wala na lépp quoi en tout cas merci beaucoup quoi